waaw ñu ngi fii tey CM Xaar Ndofène xam ngeen ne motul sax bés bu ay ñu ngi fii samp club pour la citoyenneté d'intégrité active maanaam kuréel goo xam ne day saytu citoyen bi naka taxawaayam lan la mën a doon tey nag ñu ñëwoon pour jublu ci liggéey bi liggéey bi mooy lan mooy ay xalaat yoo xam ne xale yi jàpp nañ ne ku ko def ci seen bopp dinañ mën a doon ay citoyen yoo xam ne royukaay la ñuy doon bi ñuy njëkkee nag li ay njàmbat Covid 19 bee fi nekk ñu ne tey duñ def len lu dul sensibiliser sur les gestes barrières moo taxoon ñu daje tey seen encadreurs yi ñi leen di jàngale won leen wax leen lan mooy geste barrières yi wax leen itam. yan comportement la ñu war a am par rapport à la pandémie. situation aussi foofu euh, rafet na lool jort naa ne sax xëy na dañ doon nafar rek parce que yu mel noonu euh, xamoon nañ ko déjà waaye gën dañ koo xam parce que seen laaj ak seen tontu wane nañ ne geste barrière yi moom du ci ñoom te engagé woon nañ ne nañ ko jëfe te engagé wu nañ ne dinañ ci sensibiliser seen morom engagé wu ne nañ ci sensibiliser société Fatick yëpp suñ ñibbee seen kër suñuy dox ci dëkk bi loolu daal moo ma tax ma kontaan ci vraiment ndaje tey bi. bon euh, terminé nañ suñu séance de de d'installation installé nañ club bi ba pare club Sika et mën naa ne aussi mën naane aussi ñun. mën nañ ko dañ koy gëm rek mais mën nañ ko mën nañ nekk club exemplaire bi bi nga xam ne ñëpp mën nañ roy ci ñoom pour euh, yeneen école yi bëgg a installer tamit club bi ci seeni école aussi ñu doon ay citoyen xam seen dëkk xam seeni àq ak yelleef aussi li leen war ci seen dëkk tamit ñu def ko respecter lépp luy euh, ay institution ak constitution